مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد جنا بنيو سنتي يالله جولي سي نتابي عليه الصلاه والسلام ني باتاي تي سوره المعارج تي تفسير سوره المعارج ا ني ولا تامل وون نتي سون في بروم سبحانه وتعالى دي نلالي ay feeñuwaay ci feeñuwaayu ñi nga xam ne ñooy jullit ji dëgg-dëgg nga xam ne dañoo jokk ci seen borom subhaanahu wa ta'ala mu ne walladina fi amwalihim haqqun ma'lum ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim walladina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum sadaqallahu alayhi walladina di gaa yi nga xam ne fii amwaalihim nekk na ci seen alal yi xaqun aq xaqun cër boo xam ne maalumun bu nu xam la li saa'ili ñeel aji laaj wal mahrum ak kañu xañ am euh, bi ñaari aaya yi euh, tàmbali woon nañ ci aaya bu njëkk bi ci jotaay bi weesu euh, waxoon nañ ci waaw boobu xam xamante ne moom moo fa nekk xam ne euh, au lieu ñuy wax ne waaw bi la dañuy wax ne waawul dañuy wax ne waawul jam'a la euh, dinañ ñëw incha allah ci njàngat ne am na yeneen maam lu bokkut ak waaw yu ñu jotoon a tudd na ci waaw yoo xamante ne mi ngi ci alquran di nga xam ne moom waawul jamaa bi dañoo bokk ay mbir ak lëkkaloo bi nga xamante ne moom la lëkkaloo rawatina ci bu ñuy sóobu ci yoonu borom subhaanahu wa ta'ala lëkkale bi nga xam ne moom la am maanaam ci waaw boobu euh, mooy lu demee nekk waawul fanaa ak waawul baqaa euh, dinañu gisaale tamit melooy borom subhaanahu wa ta'ala melale nit ñu baax ñooñu ba tey ci euh, waaw bu ñu tuddee waawu samaaniya incha allah taala dinañ ko gis ci njàngat yi bu ñuy yegg si ci njàngat yi yi nekk ci aay yeneen yi nga xam ne nag tuddoon nañ leen yooyu yeneen la yu différent maanaam yu bokkul ak yi nga xam ne moom la ñuy wax ni incha allah dinañ leen gis ci njàngat kon ñooñu nga xamante ne ba tey allazina mooy gaa yi nga xam ne maanaam mu waxaat leen tudd leen ngir réyal seeni bir ngir màggal ngir yittewoo seeni bir moom borom subhanahu wa taala fii nekk na ci amwaalihim seen amwaalihim seen alal waxoon nañ ci alal lañu ñu tolloo te mooy li nga xamante ne euh, naturellement nit ki xolam day jeng jëm ci euh, te mu nekk loo xamante ne lu ñu jariñoo la te bu ñu ko waree euh, jëfandikoo maanaam ñu war ko mën a denc tamit ba soxla ko maanaam ba soxla koo jëfandikoo gisoon nañu ay teqantal yu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim def ci wàllu alal ñu gisoon ne Euh, gisoon nañ ci li nga xamante ne moom mooy tekkantal xaajale gi ñu xaajale alal ci loo xam ne mutaqawwim la ak ghayru mutaqawwim bon loo xamante ne dafa am valeur ak loo xamante ne amul valeur wala boog loo xamante ne maanaam am na valeur ak amul valeur selon Hanafi yi rahmatullah ni ko définir euh, te mooy rek loo xamante ne dagan na jëfandikoo ak loo xamante ne amul valeur mooy daganul jëfandikoo ci jullit mu am li nga xamante ne euh, ñeneen ñi jumhur muy fuqaha Maliki Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom liñ ko leerale mooy loo xamante ne dafa am valeur en tant parce que euh, moom ci boppam bu ñu ko taxawalee maanaam day am valeur ne mënaf na koo jariñoo mënaf na koo jëfandikoo ak loo xamante ne amul njariñ ba tax ku ko moom it maanaam bu ko yàqoo itam maanaam euh, wala boog buñ ko ku ko yàqalee tamit maanaam duñ fi yóbbu kenn ci kanamu yoon naan ko fayal diwu nangamam parce que loolu noonu fekk amul woon valeur comme defe woon nañ ci ay pepp dugub maanaam ñetti pepp dugub wala juróomi pepp dugub wala benn xeer wala yu mel noonu wala benn coquillage bu mu yor xeet yu mel noonu yoo xam ne euh, loolu luñ ci kenn ci kanamu yoon naan ko fayal diw euh, am li nga xamante ne euh, tuddoon nañ ci yi nga xam ay ay ay ci xeeti alal yi nga xam ne dañ koy wax démarre ak li ñuy tuddee marge mooy loo xamante ne bu yàqoo Euh, euh, maanaam euh, maanaam yaakaar nañ yaakaaratuñ jot ci am yi nga xamante ne am nañ yaakaar ci jot ci gisoon nañ tamit tekkantalu boo xamante ne te te loolu gisoon nañ ni ci buntu azaka ci lay feeñe maanaam loo xam ne am nga yaakaar amoo yaakaar ci jot ci borom ko yëpp dëppoo nañ ci ne doo ci génne azaka yi nga xam ne nag am nga yaakaar jot ci nan ndax dinañ ko génne azaka waa wala déet loolu masala la incha allah taala amaan na dinañ ko gis amaan na dinañ ko gis mu am tamit lu ñu tuddee nuquud ak urub yi nga xamante ne ay alal la yoo xamante ne mooy euh, koom lay loolu lu taxaw taxawaayu euh, njëg la mooy comme euh, wurus ak xaalis ak liy taxaw seen taxawaay comme suñu monnaie yi ñu am dollar CFA euro et cetera ak peut-être éco ba léegi ñu ngi koy tudd mais gisaguñ ko te déggaatuñ ci lu bari léegi mu am tamit li nga xamante ne. Euh, moom mooy yi nga xam ne ay gaar ay ay ay ay ay ay marchandise la maanaam mën nañ ko tuddee noonu ay orop mooy loo xamante ne euh, moom dañ koy jël ngir mën ci am li nga xamante ne moom mooy euh, wuru sa xaalis wala boog ñu jël wuru sa xaalis ngir ci loolu bu ñuy tudd am na ko maanaam mooy njaay moo ne buñ la loolu moom mooy nga jël or wala xaalis wala lu yor seen valeur ngir jëndee ko leneen loolu la ñu tuddee bàyyi am na bu siinoo bu dee or ak or. Euh, xaalis kii lay doon euh, sarfu la wala sinon muqaayaba mooy li nga xam ne moom mooy troc comme li naan troc mooy dama yor benn marchandise mu jënd ci beneen marchandise sans or ak xaalis wala lu yor seen valeur mën cee dugg euh, loolu yëpp tamit benn bu ci nekk daa am ay atte bopp ci buntu fiqh ci buntu njaay ak jënd mu am li nga xam ne moom mooy ci. tekkantal yoo xamante ne dina am ci euh, alal ba tey euh, lu ñuy tuddee euh, loo xam ne maanaam loo xamante ne ma ta'allaqa bihi haqqun ak ma lam yata'allaq bihi haqqun loo xamante ne àq daf ci aju ak loo xamante ne àq du ci aju loolu gisoon nañ ko gisoon tamit beneen teqantal boo xamante ne moom mooy manqul ak aqaar maanaam mais borom xam-xam yi rahmatullah dañoo tàqale tamit alal ci diggante loo xam ne dañ naan man kul la dañ koy mën a toxal ak li nga xam ne aqaar la maanaam moom mënuñu ko toxal euh, gisoon nañ tamit euh, te gisoon nañ teqantal bi euh, donte tënk nañ ko mais ci yi joxe dina tax ñu mën a xam yeneen ñi ci des nañ li nga xamante ne moom la ñuy wax tàqantal bi ñu ko tàqale woon ci misli yi ak xiyam yi maanaam misli yi mooy loo xamante ne Euh, lu nuroog moom am na ci marché bi te wala boog bu amee lu leen teqale différence bu am ci seen diggante euh, teqantal googu du du ko tax a am doole lool du ko am tax am valeur trop mu am nag yi nga xamante ne euh, ñoom xiyam yi xiyam yi lañ koy tuddee maalum xiyam yi mooy alal joo xamante ne lu mel ni moom du am comme bu gisoon nañ ko ay œuvre d'art yeeg wala kër yi souvent li ci ëpp ci kër yi wala musée yi wala li nga xamante ne moom mooy. Euh, yenn animaux yi comme yo xamantene comme par exemple euh, xar yi wala nag yi wala bëy yi léeg bu melni mom exactement xeyna pour trouver ko day jafe ak yu mel noonu hein wala bok surtout yi nga xamantene mom lañuy la ñuy yóbbu ci hmm, ren si ak si yeeg mom yooyu ku borom alal ak yooyu xeet yooyu surtout yooyu ay xiyam euh loolu tamit gisoon nañu li nga xam mom moy fan la différence bi di ñëwee surtout moy fu fekkente ne. Euh, nit ki daf la yàqal wala boog euh, àqam daal maanaam sa àq daal aju ci euh, kon am na tamit li nga xamante ne moom moo aju ci lu ñu tuddee asnaafu ribawiyya dañ leen wax al ajnaasu mooy lan mooy alal dafa am yi nga xamante ne ribawiyya lañ maanaam riba da ciy mën a dugg am yoo xamante ne ghayru ribawiyya lañ maanaam loolu riba mënu ci dugg loolu tamit faaw ñu xàmmee maanaam riba boo ko bu ñu koy dégg euh, dafa am rek ci loo xamante ne riba da cee am yoo xamante ne riba manu ne moo tax xàmmee yu mel noonu ci alal lan la ci riba mën a dugg ak lu mu ci mënta dugg dafa am solo bu ko defee saa yoo gisee alal yoo xamante ne riba da ci mën a dugg rek nga daal di teel a ndànk taxaw xool seetantal est-ce que doxalin bii su ma ko doxalee est-ce que riba du am. xeetu njaay ak jënd bi est-ce que fu ma ko rek est-ce que riba dugub maanaam bu ko defee nga mën a def def ndànk bu baax a baax riba nag li koy dugal xadis yi nga xam ne ñoo ci wax maanaam xadis Seydina Abu Saïd eh, eh, Abu sa'id al-Khudri xadis Seydina Ubaada Ubaada ibn Saamit xadis eh, Seydina Ma'mar ibn Abdullah radiyallahu anhu ajma'in mais bi ci gën a siiw mooy xadis Seydina ibn Saamit radiyallahu anhu mu gën a matal Yonent iya, bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا خالف فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أه، سيدنا عمر رضي الله عنه تم صلونا حديث من xadis boobu cos cos coslaanu cos cosla cos cosaanu xadis bi mi ngi ci saxeexe mais ni mu gën a matalee mi ngi ñëwee ci sunan imam Abu Dawud rahimahullah yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne wurus ak wurus xaalis ak xaalis maanaam az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wash-sha'iru bi-sha'iri orge ak orge orge xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof mais nañuy sha'ir comme euh, euh, parce que dafa mel ni dañ ko amul aussi duñ ko bañ kon burru bi burru burru mooy mooy li ñuy defaree mburu am ah, burru nga li ñuy defaree mburu mooy blé euh, kon al burru bi burri wal wa tamru bi tamri tàndarma ak tàndarma mu ne wal milh bil milh xorom ak xorom mu ne yii yëpp boo leen mu ne na nekk mislan bi misli kem ak kem euh, riwaaya bu imaamu Malik ak ak imaam Ishaq ibn Rahowi rahmatullah alayhima euh, daf ce am ci ñoom nu ñu solowee euh, xadis bi ak daanne wa ma yukaalu wa yus aw yusaam ak lépp loo xamante ne dañ koy natt wala boog dañ koy dañ koy mandaxe maanaam dañ koy mandaxe mooy yu kaalu ay kilo lay def yu parce que ay kilo lañ koy natte aw yuusan wala boog ñu koy eh, maanaam eh, eh, déedéet kaylu moom mooy mooy lu ñuy natt maanaam lu ñuy natt lu am wasnu yuusan mooy loo xam te ne ay kilo lañ koy defee voilà lool maanaam ñaari benn bu nekk yeneen bi sallallahu alayhi ne ci eh, am na sax ci riwaay ci yeneen xadis mu ne wa taamu bi taami ñam ak ñam eh, mu ne loolu yii yii suñ koy jaay déglu leen bu baax li mu wax yonent bi sallallahu alayhi ne sallallahu alayhi wa mu ne loxo ak loxo lay doon maanaam kem ak kem fokk day tolloo maanaam bu dee dañ koy natt dañ koy tolloo rek li ñuy bu dee dañ koy mandaxe mooy dañ koy peser dañ koy dañuy tolloo li ñuy peser ba mu ne yadan bi yadin ba pare loxo loxo lay doon loolu moom mooy lan mooy ta'jidu ta ta'jilul qabd mënta am wala bu ñu mën nañu ta'khirul qabd maanaam mooy euh, bu ma lay jox ci saa léegi lañ laa la la koy joxe euh, moo tax mu am ci hadith sayyidina Umar bi radiyallahu anhu mu ngi ci sahih mu ne illaa ha ha ha maanaam ha mooy am maanaam comme ni nga wax ha am wala ah voilà nga daal di jël ha waxa maanaam loxo loxo ci saasi la war a nekk yada bi yadin maanaam waruñu tàqali ko ma jël sama marchandise yow nga jël sa marchandise loolu waru ci am mu ne wa mu ne fa iza ikhtalafa hadhihi al-asnaf su fekkente ne melo yii dañoo wute xeet yi dañoo wute fa bii yox wu na ngeen mën a jaay na jaay leen kay fa shi'tum nu leen neexee iza kaana yadan bi yadin su dee loxo loxo maanaam mooy kon da ngay da ngay téye alal ji da koy téye loxo loxo lay doon euh, parce que bu yéexee dafa am leneen luñ ciy ragal euh, kon lii nga xam ne moom la ñuy wax ni hadis bi mais dafa important ci ni mu tegee léegi nag euh, yi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy juróom benn yi nga xam ne tudd na leen carrément gis nañ yeneen i riwaay yi ñu doon tudd léegi ba léegi boobu ba léegi moo tax yeneen borom koo xam ne rahmatullah am par rapport ak yeneen riwaayaat yi même bu riwaayaat yooyu ñëwul mais riwaayaat yooyu ñu gën a dëgëral ne xiyaas boobu jug na parce que zahiri yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne juróom benn yi rek ñooy asnaaf rubu yi maanaam lu dul juróom benn yi riba mu ngi ci dugg alors que yenn jumhur dañ ne déedéet dañuy dañuy xool parce que euh, li tax ñu tudd leen yii mooy ne dañ yeneen bi sallallahu alayhi exemple pour yeneen yi ci yëpp parce que dañoo seetlu gisoon ne Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yii lañ daan jaayee maanaam daan ko jëfandikoo noonu maanaam lii moo nekkoon lépp ci biir la daan wër kon euh, dafa am yi nga xamante ne kon ñoom la ñu tudd al asmaa ar-rububiyya ci alal mooy ji euh, li tax nag bu dee par exemple Hanafi rahmatullah alayhim ñoom li ñu jàpp ne moom moo tax mooy al-jinsu wal qadar maanaam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam su leen tuddee nii xeet bi la parce que dañ xaalis ak xaalis maanaam nga gis daf naan mislan bi misli maanaam kem ak kem mooy ci kem ak kem boobu moom mooy dayo bi mooy dayo bu dee dañuy peese ñu peese dee dañ koy natt tam ñu ko euh, loolu la mbir yi di ci kaw loolu kon ñoom euh, lépp loo xamante ne mënef na koo peese mënef na koo natt te kem moom mën na ci am maanaam ne mbir yi yem na égalité mën na ci am ci loo xamante ne bien sûr ba mu des loo xam ne erreur humaine lay doon parce que mbir mën mënta mat carrément loolu boobaa njaay maanaam riba da ci daal di mën a dugg voilà dee da ci daal di mën a dugg euh, bu dee yéeg euh, la ñuy xool mooy le fait que am valeur maanaam njëg euh, ñu koy mën Euh, dugal ci or maanaam or wala xaalis ñoom ñu ne loola tax yéen saa sam dugal or ak xaalis bu fekkente ne yeneen ñam yi mu tudd bu ñu xoolee ñoom yëpp lu ñu bokk parce que loolu loolu euh, mooy euh, tànkeexul manaat loolu mooy tànkeexul manaat maanaam xool lu tax yonent bi sallallahu tudd yi mooy lan mooy nañ ne ah non li tax kat yonent bi sallallahu alayhi tudd yi nga xamante ne moom la tudd mooy ne yooyu yëpp dañ leen di lekk wala bokk ñu leen di dugal ci lekk maanaam soit dañ leen di lekk wala ñu leen di dugal ci lekk maanaam comme xorom xorom dañ koy dañ lekk ba pare dafa nekk loo xamante ne dañ ci maanaam al iqtiyaat wal iddixaar maanaam al euh, euh, lu ñuy lekk la lu ñuy mën a dundee la ak lu ñu mën a denc la maanaam dañ koy mën a denc voilà parce que yii yëpp du loo xamante ne c'est périssable maanaam loo xamante ne day gaaw a yàqu day gaaw a yàqu boo ko dencee euh, kon Eh, ñu ne loolu moom mooy di tax kon lépp loo xamante ne lu ñu mën a peese la lu ñu mën a natt la wala maanaam lu ñu mën a wala ñu mën koo natt maadaama ne ah, lu ñuy lekk la ba pare mu nekk lu ko denc ce qui veut dire que comme ay tomate duñ ci bokk ay soble duñ ci bokk parce que dañoo gaaw a yàqu pomme ay orange yooyu duñ ci mën a bokk parce que dañoo gaaw a yàqu yi nga xam ne day gaaw a yàqu ay banana yooyu yëpp duñ mën a dugg ci riba maanaam riba li nga xamante ne du Euh, wala gaawute yàqu daal dañ koy mën a denc euh, kon ay raisin yooyu dinañ ko mën ay riba da ci daal dugg comme ceeb comme dugub comme mbokk ak yu mel noonu yooyu yëpp parce que yooyu ñoom ak orge ak euh, blé ñoo ñoo nuroo maanaam kon riba da di mën dugg mais attention bu ñu nee riba da ciy maanaam même même mbir bi ngay jëndee par exemple su dee jëndee xaalis loolu su dee or ak euh, euh, kii euh, ma maanaam masalan maanaam or wala xaalis ngay jël nga jëndee ci kii bi matériel maanaam nga jënd ci beneen matériel bu mën a lool loolu tamit riba bi ci dugg moom li nga xam ne moo ciy dox bu boobaa mooy su fekkente ne melo yi wute nañ maanaam kii yi ma maanaam marchandise bi wala boog en tout cas objet bi mbir mi ci boppam nature mbir mi dafa wute bu boobaa li ciy dox mooy li alquran doon wax naan yaa ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalukum baynakum bil batil illa an takuna an tiraj an tijaratin illa an takuna tijaratan an taradin minkum euh, yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu bu kenn ci yéen lekk alalu mbokk moromam ci caaxaan xanaa mbete mu nekk loo xamante ne ak njaay ak jënd ak yaxantu da cee ne mais mais loo xamante ne euh, da ngeen ci d'accord moom da ngeen di d'accord ci prix bi da ngeen di ci njëg ku nekk nag li mu la jaral rek nga koy jaayee loolu am na benn wax bu siiw bu ñuy dégg ne jaayee xaw ma lu ëpp 200 pour cent wala def xaram loolu amul loolu wérul bu dëgg euh, amul ci benn ci njaay ak njënd loo xamante ne dañ naan prix bi lii la déedéet prix marché bi ak li mu jar rek la léegi nag boo bëggul jënd li may jaay parce que tout simplement da nga jàpp ne dafa cher nga dem jënd ji ko feneen par contre li nga xamante ne effectivement loolu daf xaram moom mooy nga jël benn marchandise denc ko ba nga xam ne yi day am maanaam mooy doo day ñàkk carrément ci marché bi et que yow yaay yor monopole bi c'est-à-dire que yow rek yaa ko mën a jaay keneen mënu koo jaayee feneen nga yëkkati njëg gi nag ba nit ñi duñ ko attan loolu daf xaram effectivement loolu moom daf xaram mais su fekkente ne da koo denc ba keroog mu mu mu maanaam njëg gi yokk yokkal boppam parce que euh, maanaam mbir mi mbirum jaay jënd la et que comme que lu raar lu jafee gis nit ñi te ñu soxla ko day daal di nekk loo xamante ne njëg gi day gën a yokku loolu boobu boobaa du xaram maanaam loolu amul dara lu ci ko noonu maanaam cas de figure yi foog ñu préciser benn ku bu ma neexee mën naa jël par exemple ne tey gerte euh, xam naa ne heure bii wala ngooñ heure day xee day day fa yomb bu jënd ci lu bari denc xaar ba mu jëkk ba mu cher ma dem jaay ji ko loolu oh, loolu dagal loolu amul problème mais li xaram moom mooy ma bàyyi ba nga xam ne man rek maa am ba pare nag ma jaayee ko loo xamante ne euh, euh, dafa jéggi dara loolu moom effectivement day xaram parce que lor marché bi daf cee nekk ba pare lor jullit ñi lor nit ñi daf cee nekk kon lool tamit il faut mu nekk loo xamante ne lu ñu xam ne la lu ñu ràññee la te lu ñu war a settantal la euh, léegi alal bi nga xamante ne ay alalu riba la kon kon riba ci yii rek la mën a ne maanaam tey bu ma lay jaay benn kër ne la sama kër gi nekk ndakaaru jaayee naa la ko ñaari kër ya nekk ndar loolu riba ci am euh, par exemple tey su ma ne woon euh, sama yëri yi yëri yi jën jën naa yëri bi jaay la loolu riba du euh, ñi nga xam ne ñooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullah pour yeggale bu ñu xoolee ñoom li ñuy bàyyi xel maanaam mooy njëg gi ak tamit ñam gi maanaam lu fekk mu nekk ñam rek Euh, par contre yi voilà maanaam kon loolu moom la ñuy bàyyi xel na nekk rek lu ñuy peese ak lu ñu natt na nekk lu ñuy peese ak lu ñuy lu ñuy natt euh, kon bu ñu xoolee daal ci tënk mën nañ jàpp rek ne euh, kon mbir mi li ci am solo moom mooy mu nekk loo xamante ne ñam la lu ñuy lekk la wala mu nekk loo xamante ne lu ñuy lu ñu mën a denc la maanaam loo xam ne du yàqu bien sûr ba pare mu nekk tamit loo xamante ne dañ koy mën a euh, euh, maanaam bu dee bu dee or ak xaalis moom attey boppam la yor moom ak lépp loo xam ne lu mel noonu ci kaw loolu riba du am tey su fekkente ne dama jël ay dollar di ko weccee ko ak ay euro loolu sarf la tudd loolu dina dagal lii xaraam nag déglu bu baax lii xaraam moom mooy su ma jëloon sama dollar wala samay euro wala sama CFA ma di ko jëndee même monnaie bi même monnaie bi ba pare bëgg nga wàññi ko c'est-à-dire que tey comme tey su ma yoree téeméer maanaam 500 francs ma dem ci kii wecceeku wala ma yor 5000 francs nañ jël 5000 francs benn billet laa yor et que dama ma dem ci kii wecce kii wecce ma daal ko am 5000 francs baa ngi nii damaa bëggoon nga wecc ma mu ne la ah man nag faw ma jël ci juróomi dara maanaam jël ci 25 francs loolu bu boobaa ngeen weccoo ngeen d'accord ci loolu nag xaram loolu riba la tudd euh, léegi su fekkee ne daf laa jox 2000 francs yi ba pare 1000 francs yi. Eh, Nela la bu beneen yoonee nga ñëwaat wala boog eh, loolu eh, loolu riba nasi la tudd maanaam loolu tam xeetu riba la kon monnaie bi dafa war a nekk lu présent lu teew ba pare dafa war a bi kem ak kem ba pare yadan bi yadin la war a nekk loxo ak loxo la nekk léegi nag tey bu ma jàppee ne euro day tolloog six cent cinquante six francs bon dañuy comme noonu tënk ko noonu ma jëlee la man par contre mënuma jaayee loolu euro maanaam 1 euro du ma ko mën a jaayee 656 francs man 1 euro dama ko jaayee 700 francs loolu am naa ci plein droit soo bëggee nga jënd soo bëggul nga dem keneen mu wecc la maanaam maanaam loolu jënd la tudd kooku njaay jënd la eh, mais parce que lu tax parce que xeet bi dafa manam maanaam eh, te yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa idha ikhtalafa hadhihi al-asma fa bi'u kayfa shi'tum idha kana yadan bi yadin su xeet yi wute rek manam na ngeen daal di jaayee nu mu leen neexee waaye ci kat ci condition su dee loxo la maanaam kon euh, loolu lu mat a bàyyi xel la euh, euh, ak bitcoin tamit maanaam c'est la même moom ak yeneen monnaie yi ñoo yem voilà crypto monnaie yi maanaam crypto monnaie yi nga xam ne ay crypto monnaie lañ ñoom ak yeneen monnaie yi ñoo yem ci buntu boobu kon ci biir loolu da ngay gis sax ne xataa ba tàqale googu day dugg ci lu ñu tuddee maanaam ci différence ah teqantal gi am ci diggante noqoot yi ak ah, urudi da ngay gis ne am na kon foofu différence daf cee am euh, loolu euh, kon maanaam lu lu lu lu lu a bàyyi xel la léegi nag euh, léegi nag pour wax continuer rek njariñ bu ndaw ci riba dafa am benn xadis boo xam ne wéru gaa mais mboolem borom ko xam ne dëppoo ci di ko àtte woo mooy kullu qardin yajuru naf'an fa huwa riba bépp bor boo xam te ne day xëcc njariñ loolu riba la c'est-à-dire que tey su la lebalee dara et que ci jëmmi lebal boobu dafa war a dafa tax man ma amal la nga ameel ma maanaam doo yam rek ci fay ma bor bi mais dafa am yeneen i mbir yu ci làqat loolu riba la tudd ak tamit lu ñu tuddee euh, euh, bay'un fi bay'in wala boog euh, maanaam mooy jaay ci kaw jaay maanaam wala boog ñaari njaay ñaari contrat ci benn contrat ñaari contrat ci benn contrat loolu tam dafa xaraam mooy tey comme par exemple ma ne la euh, dama bëgg nga euh, nga jaay ma lii maanaam euh, ordinateur bi ñaata nga koy jaayee ma ne la ordinateur bi 500000 laa koy jaayee 500000 francs CFA laa koy jaayee ma la d'accord mais nag man yoruma 500000 francs 500000 francs moom nii nii yoruma ko fi mu toll 200000 laa yor nga ne ma ah soo bëggee de ma jaay la ko. ba pare état leen la ko nga fay ma ko ci ñetti weer da nga koy def dañ koy day mujj doon six cent mille francs yaay tànn c'est-à-dire que bu boobaa deux cent mille nga may jox chaque mois mu nekk six cent mille à la fin maanaam loolu la ñu tuddee bayaw taxit loolu bayaw taxit la la tudd loolu dagal na euh, léegi euh, su fekkente ne def def nga taxit boobu maanaam mooy dama naan la dama lay jaay fii ba euh, ñu dem ba ci trois mois yi muy deux cent mille deux cent mille mille nga ne ma waaw nga nga ne ma non mais xaaral est-ce que ma ne la ah waaw d'accord léegi xaaral kon ma dem xool ku ma mën a abal yeneen trois cent mille ma ñëw jënd ko contrat bi man du fasu bu fekkente ne mbir mi léegul c'est-à-dire que il faut que maanaam mënu ma par exemple soit cinq cent mille laa la koy jaayee léegi wala six cent mille nga fay ma ko euh, ba pare ma jël marchandise bi dem ak moom ba pare fayu fayuma la ba pare wóorul xamaguñu exactement ci lan la ñu taxaw loolu daf maanaam kii parce que lu parce que après man maay ñëw ne la waa garaaw finalement am naa cinq cent mille wala ma ne la finalement deux cent mille laa lay jox ñu ko maanaam loolu noonu moom daf xaraam maanaam il faut que contrat bi leer dès le départ parce que bokk ci li nga xam ne mooy xaraamal alal mooy lu ñu tuddee xaraam mooy ak ak euh, naxe ak wurus ak ak ak naxe mooy loo xam te ne xamuñu ko loolu euh, dafay dafay dafay xaraamal dafay xaraamal alal lu bari bari ci yi nga xamante ne daf xaraam comme ay mulaabasa euh, ay euh, munaabaza ay ak yeneen yi nga xamante ne yu bari bëri ci ci ci ci alal yi li bokk na ci li tax mu tax mu xaraam maanaam ci njaay jënd mooy xaral gi ci ne mooy le fait que am ñu précision ci ci ci ci mbir mi voilà tey bu ma nee la dama lay dama lay jël nga liggéeyal ma euh, liggéey boo xamante ne dama lay fay nangam ak ak ndollent dooleet kooku comme xamuñu ko day daal di nekk loo xam ne dafa xaram maanaam salaire boobu loolu day xaram il faut mu nekk lu ñu préciser lu ñu xam euh, voilà euh, lii dama bëgg ma il faut ñu ñu ñu maanaam xawaayit la ay xawaayit kubra lañ maanaam ay ponk la ñu mag ci euh, njaay jënd wala ci alal nu muy nu muy ñëwee yoo xam ne ne boo ko maîtriser di nga maîtriser lu bari bari yi sew yëpp dañuy dugg ci biir voilà tey par exemple li nga xam ne mooy xablool xabala comme yeneen bi sallallahu alayhi li mu teree loola xablool xabala mooy euh, ma jaay la euh, euh, ne la sama xar mi baali baali la wala sama xar mi nangam la li mu ëmb jaay naa la ko wala boog moom bu juree doom kooku doom jooju lu mu jur jaay naa la ko par exemple wala boog tool bi mi ngi nii tey ren damay bay mais tool bi lu ci ñor rek yaa moom maanaam jaay naa la ko loolu loolu loolu mënta ne maanaam balaa ngay jaay comme lii Seydina xadis Seydina Anas naa radiyallahu anhu Nabi an bay simaari voilà euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere ñu jaay ab euh, maanaam meññeef feeg kii commencé gul xaay ba ñor bay commencé ñor parce que mooy weesu na daal fu mu yàqoo il faut que loolu leer parce que euh, et cetera maanaam dafa am ay mbir yoo xam ne yu ay précision daf ci am te boo xoolee yooyu yëpp li bokk mooy alxaraan mooy comme xadis Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu bi ñu ci saxee tam dafa tere rek maanaam njaay moo xamante ne ak xeetu wor ak mooy maa ngi lay jaay par exemple euh, picc mi picc mi maa ngi la koy jaay te picc mi mi ngi naaw joxaguma ko loolu mënta ne wala boog maa ngi lay jaay jën bi xam ne mu ngi ci géej gi loolu tax mënta ne maanaam que lu tax xaraar da cee par am na li nga xamante ne euh, dina mën a mooy euh, wa par exemple mu laaba mu laama sax loolu tamit daf xaraam mooy ne ah mbir yaa mais loolaal rek loolaal faw yaa koy yaa koy maanaam yaa koy jënd te man xamu moo ndax matériel bi mi ngi dox waa wala déet mais maadaama ne laal naa ko wala ubbi naa ko rek euh, léegi jeex na c'est bon mu jaa ko moom maanaam loolu loolu tamit du demee noonu wala boog euh, da ngay bantale maanaam ngir xam ban ngay jël yooyu yëpp dafa xaraam loolu moo tax mu xaraam maanaam mooy incertitude bi nga xam ne moom mooy dugg kon yooyu ay mbir la yoo xamante yu yu a bàyyi xel la mais lii nii sax bokkul ba tey ak asnaafu ribaw yi yi boo seetloo yi ñu tudd maanaam yii ay yeneen i mbir la rek yoo xamante ne dañoo génn afnaaf de boobu yooyu na tamit lu ñu tuddee bay on najash mooy tey ma jaay may ma ñëw euh, waxtaan ak benn waay ne ko sa euh, man daal dama bëggoon rek nga nga dañuy jaay affaire bi yow léegi boo ñëwee da mel ni ku waxaale affaire bi ba wàcce prix bi wa wala boog maanaam nga nga wax ko euh, wala boog man maa koy jaay man maa jaay affaire bi léegi yow da ngay mel ni ku koy waxaale di yéeg di yéegi di yéegi ba yéegi prix bi man xam naa ni am na ñu ko bëgg a jënd mais dinañ dégg suñu waxaale gi buñ gisee prix bi fi mu yegg léegi ñoom suñu ñëwee ñu mën a wàccee prix bi lu gën a tuuti loolu bu ko defee ñu jëndi ko ci ci loolu wala lu ko ëpp loolu euh, dafa xaram tamit maanaam ndax nax nit ñi la naka noonu tamit lu demee nekkee euh, nga jënd benn même matériel benn matériel nga dem jënd ji ko euh, wala boog bayoon par contre loolu am na lu muy nuróol te dagan na mooy lu ñu tuddee bayoon musaayada mooy tey Euh, mooy enchère maanaam dañuy toog dañuy jaay benn affaire ku nekk day wax li mu li mu yaakaar maanaam maadaama déggoo préalable amul woon ci mbir mi rek loolu day daal di dagal maanaam mooy comme ni enchère yi di def ah lii kat dañ koy jaay ah, cent francs lay tàmbalee aja ku ñëw man mën naa ci cent cinquante kii ne non man deux cent kii ne mën naa ci trois cent et cetera ba keroog kii ki jàpp ne moom moo ëpp doole li maanaam lim lim li moom moo gën a soxla moo ci àttan a gën a def da alal mu daal di ko jël yóbbu maanaam ma daal di yor sama maanaam maanaam ma ne mu daal may fay ñun ñaar ñëpp dañ ciy gañe Euh, loolu loolu tamit dagal na maanaam mais li daganul moom mooy ma woo benn waaye mu bokk ci affaire bi yaa ngi dégg ñu waxtaane ko léegi moom bu kenn ci yëkkatee rek moom moom day yëkkati prix bi euh, loolu noonu parce que ak nax ak wor jullit ñi da dugg maanaam nit ñi da dugg euh, ah kon foog ñu xam ñu xam ne bu baax a baax yi nga xamante ne mën na ne ak yi nga xamante ne mënta ne yooyu ay tënk la voilà voilà comme tamit euh, ay mu xaqala loolu tam mënta ne mooy tey par exemple euh, muy jënd par exemple dugub fekk mu nekk ci góob bi maanaam ci ci ci ci ci épi bi wala mboq alors que euh, ba pare ma ne la lii laa la bëgg laa bëgg jënd mais nag man léegi maanaam man man yor naa ay dugub gaa mais dañoo nekk ci seen ci seen góob yi lañ nekk léegi nag yow dama bëggoon wala boo bojjaguñ ko par exemple bojjaguñ dugub gi mais yow léegi damaa bëggoon nga jaay ma dugub bi nga xamante ne nag moom bojj nañ ko pare loolu dafa xaram mënta ne parce que lii xamuma nu mu toll par rapport ak lii xawma euh, génneeguñu li ci yàqu ak ya et cetera ba pare bu ma ko bojjee lu ma ci mën a am précis boogul léeragul ci sama bot kon dafa xaram voilà ak al al euh, muzabana moom mooy comme garab yi euh, loolu day am surtout ci tàndarma ma ne mi ngi nii dafa am li ci li ci li ci kaw Eh, maanaam li ci eh, tàndarma gi dama la koy jaay tàndarma gi loolu maanaam bi nekk ci kaw garab bi te te mu tooy wowagul wala boog sax ñu koy doog a witt mais wowagul ma jëndee ko tàndarma gi nga xam ne day wow parce que affaire bi su woowee day day rétrécir loolu tamit dafa nuróo rek tey ma ma ma ne la man yor naa fi ci lu ceeb léegi dama bëggoon nga jaay ma ñànkatam loolu tam dafa xaram parce que lu tax parce ceeb bi suñ ko toggee du xam nan lay tollu après maanaam loolu yëpp. Euh, ay mbir la yoo xamante ne yooyu yu mat a la ay qawaid kulliya la maanaam ay ay ay ay règle la yu général yoo xamante ne saa yoo ko xamee ba maîtriser ko benn yoon euh, bëriwul torop maanaam bëriwul torop soo ko maîtriser benn yoon yu ci bëri bëri après da ngay di nga nga xam règle yi nan lay doxee parce que ay éléments yi maanaam masala yu ndaw ndawaan yëpp dañu dugg seen biir euh, ba pare mën nga koo nattee ci mboolem masala yi nga xamante ne ñoom ñooy xew ci suñu jamono maanaam di mën a nattee léegi. mu am euh, alal yi nga xamante ne kon euh, mooy asnaaful boobu yooyu kon loolu yooyu yooyu mat a bàyyi xel la euh, ba nga xamante ne nit ki suy suy suy suy suy suy jënd ak suy jaay mu mu bàyyi ko xel mu xam tamit lan la mën a def ak maanaam ba fan la ci mën a ba fan la ci mën a dem. mu am yu ñu tuddee lu ñu tuddee al asnaafu zakawiyya maanaam mooy alal yi nga xamante ne xeet lañ koo xamante ne dañ ci mën a génnee azaka xaqiqatan eh, azaka tamit du alam yëpp yëpp yëpp lépp loo am rek dañ ci mën a azaka déedéet alal yi nga par exemple man bu ma ay kër wala samay yére wala samay dàll et cetera lu mu bari bari bari loolu du génne azaka ci benn cas de rek ci azaka dinaa ko après dinaa ko tudd léegi incha allah mais yi nga xamante ne moom la ñu mën a génnee azaka parce que il faut que ñu xàmmee ko parce que parce que comme ci alal wax dafa alal yi nga man azaka dama ko cee war a génne par force su fekkente ne mat na nisaab bi eh, yooyu dinañ ci ñëw ci benn bu ci nekk ak sa nisaab lan la ak nan la parce que dañu nekk rek ñu définir alal bi nan la mel lan mooy alal ji rek ci jëmmi boppam mais euh, buñ ñëwee ci masala yi incha allah taala dinañu wax benn bu ci nekk ci alal yi nga xamante ne moom la ñuy wax ne euh, azaka la wax benn bu ci nekk maanaam nisaab bi nisaab moom mooy euh, seuil bi nga xamante ne maanaam mooy seuil minimal bi nga xamante ne. feek alal yëg bu fa duñ koo génneel asaka parce que du képp ku am benn ci alal yi ñu nar a tudd rek da ngay génne asaka déedéet euh, bu njëkk bi moom mooy li ñu mooy mooy euh, kon wurus ak xaalis loolu lañ tudd al asmaan maanaam euh, zahabu wal fiddati mooy mooy nokkul yi ak lépp loo xam te ne dafa taxaw taxawaaye comme ay dollar CFA dalasi euro yen livre et lépp loo xamante ne mel na noonu dañ ciy génne asaka am na nag ñenn ñoo xam ne suñu waa jamono lañ parce que ñoom dañu ne alal jooju kenn suñu monnaie yi kenn du ci génne asaka ndax or ak xaalis la la la xadis yi doon wax loolu njuumte bu rëy rëy beneen mbir beneen point bi nga xamante ne tamit parce que parce que or ak xaalis li tax ñu tuddoon génne asaka el la boobu moom moo nekk ci lii te moom mooy lan mooy Euh, samaniya gi muy le fait mu nekk li nga xamante ne moom la ñuy jël maanaam tey moo bëggoon a jënd dara or ak xaalis mooy li nga xamante ne moom laa daan mën jëndee dañ ko daan tëgg nekk ay pièces lii nekk diinaar beneen bi nekk bu dee euh, or bu ñu tëgg ay pièces mooy diinaar euh, xaalis muy wurus mu wurus mooy mooy or xaalis mooy argent bi ñu tëgg def ko ay monnaie def ko monnaie moom mooy moom loolu moom la nit ñi daan jëndee. te li ëpp ci marchandise yi moom lañ ko daan jëndee li ëpp ci mbir yi mooy bay al mutlaq li ñuy tuddee bay al mutlaq kon li taxaw taxawaayam moom daa iman day nekk loo xamante ne loolu euh, dañ koy dañ koy dañ ciy jëne dañ ciy dañ day day taxaw seen taxawaay ci buntu yëpp ci buntu riba ci buntu alal ci ci buntu euh, azaka et cetera d'ailleurs ci buntu interaction doxalin maanaam ku ne xam na ni tey fim mu bo boo nekkee euro te yoro ay euro euh, dina bari loolu mu nekk say problème mu lay jafe naka noonu euh, la meloon tamit jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ku yorul xaalis xaalis maanaam wala wala wurus dana bari loo xam ne dana ko bëgg jënd te day yi loolu la woon euh, fan yi naa ku doon wax naan euh, bi muy tudd juróom yi nga xam ne juróom-benn yi nga xam ne ñooy asnaafu ribaw yi bi sallallahu juróom-benn yooyu mu ne ñoo nekkoon ay monnaie jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu amul bu dëgg demewut noonu de yii loolu du monnaie kii Euh, marchandises yi yooyu noonu li ñu tuddee euro parce que il faut ñu différencier entre nuqul yi ak euro bi comme ni nga xam ne noonu te loolu différenciation boobu ci borom xam yi def rahmatullah alayhi dafa ama am solo parce que d'ailleurs looloo tax sax ñu tekkale diggante euh, njaay ak jënd yi moo tax kooku li mu wax noonu ak loo leen naw naw naw ay waxam euh, wala jàpp ne li muy wax ñu yëpp dëgg la parce que daf ci doon wax bon ak ak idée conspirationniste yi par rapport ak euh, banque yi nangam nangam et cetera maanaam ci anam koo xamante ne sax daanaka maanaam loolu moom mooy daanaka ma jël sama alal sax di ko dugal ci banque bi mu da sax wax na ko dafa xaram maanaam te loolu euh, euh, ak yeneen yu ma noonu loolu maanaam ñàkk dégg dëgg na parce que vraiment maanaam loolu vraiment ñàkk a xam fiq pire moom moo tax waaye en tout cas ci domaine boobu précisément moo tax muy waxee noonu ak di précisément d'ailleurs ki ko doon laaj sax ba mu ko laajee mais kon finalement ñun en tant que jullit maanaam finance islamique bi kon naka lay demee da ngay gis ne même loolu sax joxewul benn solution waxul benn yoon ne mbir mi nii lay demee ndax tellement que euh, dafa nekk ci idées yi ci idées yi euh, maanaam euh, lépp bon lépp nangam lépp lii lépp laa ci mentalité boobu noonu boo ci nekkee da ngay nekk koo xamante ne doo nekk nitu solution maanaam doo mën a wax nit ñi lan mooy solution kon finalement Euh, te euh, ba pare euh, am fit ci di taxaw maanaam bëgg a diingat li nga xamante rek moom mooy ñaari imam yu mag yi ñoom imam al-Bukhari imam Muslim rahmatullah alayhima ne taxaw ñemee wax ne seen saxiix yi xadis yi nekk wérul et cetera dangam te amul benn même su ilmul xadis amu ko kooku yàlla nañu yàlla sàmm mais loolu yëpp day wane léeg-léeg bopp léeg-léeg maanaam attention bi ñu war a def ci nit ñi wax ak lan lañ ñuy wax ak lan lañ war a déglu ci seen wax loolu dañ ko war a bàyyi xel maanaam waruñu rek def rek di gaaw a yéemu ci nit ki li muy wax ak na muy waxee ak ci li mu ciy dugal loolu war waruñu ko gaaw a def yal nañu yàlla sàmm ala kulli xaalim kon li nga xam ne moom la ñu jublu woon ci wax ji eh, jubluwuñ ci wax ci kenn dal ci kenn wala tuumal kenn wala yeen mais liñ ci jublu rek mooy leeral quand même mbir yooyu parce que dafa am solo eh, ñu ñu ko eh, li nga xam ne moom mooy kon Euh, euh, alal yi nga xamante ne ñoom ñoom la ci la ci la ci la ci la riba di dugg euh, maanaam alal yi nga xam ne ak yi nga xam ne moom la asaka di dugg ba tey ñoom ñëpp sax nekk ñu dem am na alal yoo xamante ne riba du ci dugg mais asaka daf ci dugg te loolu dinañ ko tudd léegi kon bu njëkk bi mooy al asmaan mooy mooy mu am am ñaareel bi ci def mooy lu ñu tuddee az-zuru wa as-simaa koo xala parce que asmaan comme li alquran wala yunfiqunaha fi sabilillah comme mooy mooy aaya boobu noonu fa bashirum bi adabin alim euh, ñii manque te maanaam ñii jël di di di di denc di rënk waaw di rënk ah, euh, or wurus xaalis te duñ ko dépenser yoonu yàlla mooy ci li yàlla bëgg d'abord kon loolu benn mbir la mu euh, mu am li nga xamante ne moom mooy az-zuru wa mbay mi te mbay mi tamit du lépp la ñuy la ñuy génne asaka loolu tamit lu mat a bàyyi xel maanaam du lépp loo bay rek da ci génne azaka maanaam pour ñu mën a génne azaka ci lu ñuy bay il faut que mu nekk loo xamante ne lu ñuy dundee la maanaam loo xamante ne maanaam moom tey boo ci lekk danga boo ko doon togg mën nga cee dund comme par loo xam ne mën nga cee defar ñàngatang par exemple boo ko mbayee ah, wala boo xam ci laax comme par exemple yooyu noonu am na ñoo xamante ne wala cere yooyu dañ ci mën a dund euh, ba mu nekk loo xamante ne lu ñu mën a denc la ci kaw loolu kon légumes yi ak fruits yi yooyu duñ ci génnee azaka voilà yooyu kenn du ci génne asaka loolu loolu mat a bàyyi xel la mais fi nga koy génne asaka dinañ ci ñëw insha allah taala ci beneen mbir la du ci bunt boobu lañ ciy génne asaka mais ci yeneen moo tax ñu ciy génne asaka euh, kon loolu moom mooy ñaareel bi ci des mooy il faut que bu dee fuqaha maliki sax rahmatullah am dañ ciy teg charte il faut que ñu mën koo denc njàng euh, loolu Euh, moom mooy ñaareelu xeet bi nga xamante ne euh, comme li alquran na euh, kulu min samarihi iza asmara wa aatu haqqahu yawma hasadihi kon loolu day wane dañ ciy génne azaka sauf que moom benn yoon lañ ciy génne azaka maanaam mooy moment bi nga xamante ne moom nga moom nga dékk comme li ne lekk leen ci meññeef yi nga xamante ne moom mooy am waaye nag wa aatu haqqahu yawma hasadihi na ngeen génne nag azaka haqqahu mooy di dinañ ci ñëw ci baatu xaq maanaam yi nga xamante ne moom la mën am Eh, incha allahu taala kon wa xaqahu yawma xasaabihi bisu góob bi maanaam bisu góob kon loolu faw dañ koy génne loolu moom dafa la mooy azaka yi eh, ñetteelu yi nga xamante ne moom la ñuy génne azaka moom la ñuy moom la loolu la ñuy wax bahimatul an'am dañuy wax alxayawaan mais dañuy wax bahimatul an'am eh, jur gi jur gi dañ ciy génne azaka mais jur gi du lépp la ñuy génne azaka li ñuy génne azaka mooy gëléem ak nag Euh, gëléem ñaari xeet yëpp arabi arabiya bi ak euh, buxtiya bi mooy bi am benn boos bi ak bi am ñaari boos bi maanaam yooyu yëpp dañ ciy génne azaka mooy lu ñu tuddee chameau ak dromadaire euh, nag tam lu ñu tuddee alxanam maanaam nag mooy albaqara albaqara ah mooy bu góor bi ak li nga xamante ne moom la ñu tuddee alxanam mooy mooy mooy gàtt gi ñu naan gàtt gi mooy lan mooy xar ak bëy xar ak bëy ñoom la ñu gàtt gi ñooñu dañ leen di génne asaka kon ñett yi ñoom la ñuy génne ci jur man bu ma yoroon ay ganaar lu ñu bëri bëri ak ganaar yi du ma leen génneel asaka par exemple su maanaam su ma xanafi euh, yi rahmatullah alayhim euh, mbooloo bari ñoom dañuy jàpp ne par exemple fas dañ koy génneel asaka ñoom dañ jàpp ne fas dañ koy génne azak loolu tamit amaana dinañ ci ñëw incha allahu taala mais euh, li nga xam ne mooy li wér incha allah mooy ne fas kenn du ko génneel azak te loolu mooy waxu jumhuurul ulamaa te loolu mooy lu euh, nga xamante ne dañ ni moom dañ leen di lan eh, euh, mu am tamit beneen mooy lu ñu tuddee urudu tijaara gis nga ñu doon xam nga noxoor yi waxoon nañ ko mais urudu tijaara loolu nag mooy cas de figure bi nga xamante ne yeneen yi ci des yëpp ñu ne la lii kenn du ci génn azaka lii kenn du ci génn azaka waaye ba mu des ci cas de figure bi lu ñu tuddee uruudu tijaara mooy loo xamante ne dama tam tamit damay damay dama koo teg mu nekk ay marchandises yu may jaay euh, tey par exemple euh, condition yi nga xam ne moom moo tax mu mën a génne euh, xar ak bëy mooy gàtt gi parce que par exemple pour joxe benn condition boo xamante ne daf cee daf cee te Euh, mu nekk loo xam ne man du man maa koy xëccal ndox maanaam du man maa koy maa koy wëgg wëggal sama bopp maa koy euh, ba euh, ak ak li muy lekk maanaam li muy lekk ak naan daal du du maa koy xont du maa koy wëgg su fekkee du maa koy du maa wëgg maanaam bu boobaa maanaam ek dama ko bàyyi rek ci àll bi muy foraatu ak di dem ci def yeeg ci kii yeeg yooyu di naan wala ci bëtu ndox yi di naan ko yooyu noonu lool bu boobaa bu ñu àggee ci yenn yi dinañ ci wax mooy nisaab bi dañ koy génneel asaka léegi ñu xool ne euh, su kon su fekkente ne man damaa nekk euh, koo xam ne damaa yor sama benn euh, tool bu mag a mag dugal ci samay xar jur jur bu baree bare ay junni wala ay téeméeri téeméer ay junni yi jur te man maa leen di wëgg maa leen di xontu alal jooju du ma ci génne azak du ma ci génne azak te pourtant subhanallah ànd ak ni du ma ci génn azaka mais su ma décidé woon ne léegi nag dama leen di jaay ay marchandises yu may jaay lañ dama leen di génneel azaka en tant que urudu tijaara dégg nga wax bi en tant que marchandise voilà euh, su yoroon su doon def euh, euh, maanaam kon bépp marchandise bu ma yor mooy par exemple ay kër ma koy jaay wala moy jaay ay ay ordinateur wala ay télé wala ay yeneen ak yeneen marchandise matériel bu may jaay saa yu wee saa yu at ñëwee il faut que ma def lu ñuy tuddee ma def inventaire maanaam xoolaat mbir bu ma daal di génne li nga xamante ne moom mooy asaka ma daal di euh, bu fekkente ne dañ ko organiser ci réew mi wala boog ci dëkk bi au niveau wala au niveau national wala au niveau régional en tout cas euh, organiser ko loolu bu boobaa alal yi day tàqali koo yi nga xamante ne moom la ñu tuddee am wàllu euh, na ak yi nga xamante ne moom la ñuy tuddee anwa amwaalun euh, euh, zahira alal yi nga xamante ne dañoo nëbbu ak alal yi nga xam ne dañoo feeñ mooy man maa xam existence bi bu boobaa euh, maanaam nguur gi xamul ndax man yor naa alal bi bu boobaa man à titre personnel man maa ci génne sama alal bu fekkente ne nag nguur gi xam na ne maanaam moo ko yor maanaam ndax alal bi dafa feeñ bu boobaa nguur gi ci boppam moom mooy réclamer azaka yi maanaam xeetu impôt koy la koy jëlee ak xeet yu mel noonu mais attention nguur yi ñuy wax mooy nguur bu tegu ci lislaam loolu lañuy wax mais suñu nguur yi euh, kuy génn azaka seen moom génne ko maanaam impôt yi ñu lay teg ak azaka duñ benn ba tey xattaa euh, alal même ci buntu boobu sax am na différenciation bu am entre lu ñu tuddee euh, naamun mooy maalul naamun ak maalul maalul kiriya maalul maalul naam mooy alal bi yoo xam te ne day day day day day day day day day bëri voilà loo maanaam comme jur jéeg yooyu nga xam ne moom day jur jural boppam ak yeneen ak yeneen moo lool moom moom moom moom moom euh, nu mu wul fii am na xam ne nu mu wul taqdir yi mooy alal joo xam te ne màggaayam dañ koy nattale mais ne du mooy alal bi maa teg fii euh, et que marchandise la boo xam te ne mën naa ciy jaay et cetera yooyu dañ ci génne azaka ngir loolu maanaam ngir ne il faut ñu comprendre que ni borom subhanahu wa bu ñu xoolee principe de base bi bokk na ci principe de base yu mag yi mooy ne azaka du du du du comme wala kii nga xam ne alal ji rek la ñuy bàyyi xel déedéet alal ji nga xamante ne dafay fulandiku day gën di bëri day nekk di liggéey day day nekk di nelaw mais di gën di gën di bëri maanaam muy mën di nelaw alal jooju ak euh, que le fait que alal ji. Euh, Euh, maanaam mooy mooy ne toogul kese quoi maanaam dañuy ñëw day day am lu koy fekk parce que day day day màgg day màgg ngir leneen ngir lu mën a tax nag mu màgg euh, moo tax léegi lool dañ koy lool moom boo xoolee yi ñuy génne asak yëpp ci ci buntu boobu lay génne asak li li li ngay ngay xool ne maanaam moo tax ñu ciy génne asak euh, mooy ne alal bi bi bi man bi màggal boppam la ba pare day nelaw maanaam dans le sens day nelaw mooy alal la joo xamante ne. <laughs> Euh, soxlawu bu parce que su ma ci mënee am nangam mu toog at ba at te sëy boobu mooy nisaab bi wàccu ko mooy ne mooy ne alal bi man nekkatuma ci soxla maanaam alal jooju ci la ñuy génne impôts yi bu dee asaka loolu lay doon muy redevance yi nga xam ne dafa war muy impôts yi nga xam ne dañoo war loolu. ci réewum l'islam yooyu la ñuy génne azaka mais duñ génne azaka ci alal ji nga xam xamante ne maa ngi nii dama koo soxla dama ciy war di liggéey alal ji et cetera yooyu dañuy gis système day tax day dàq pauvreté parce que bu fekkente ne euh, euh, yow salaire bi ngay am xëy na dara mais dañ la ciy dañ dañ koy dañ ciy dañ la ciy tekk ay te yow alal jooju noonu yow da nga kaa soxla mais ñu ngi tënk loolu day tax ba nit ki du gaaw a génn ci niveau bi nga xamante ne ci lay. Eh, ci lay nekkee ku woomal maanaam du ci gaaw génn alors que système bi l'islam teg mooy ne alal bi buñ ko xoolee bi muy bi ñu génn azaka mooy bi nga xam ne daanaka mën nañ ni am na ci partie bu rëy boo xamante ne soxlawuñ ko voilà am na ci partie boo xamante ne ko bu rëy en tout cas am na seuil minimal boo xam ne loolu moom soxlawuñ ko moo tax ñu ne la kon ci alal jii dañ ci génne azaka ba pare buñ ko def ci lépp dafa am rek ci ay parties yu ñu koy def par exemple ñu ñu tuddee ay impôt sur euh, euh, euh, sur sur kii mooy mooy mooy mooy ISF euh, sur la fortune wala impôt wala boog ay impôt yi nga xamante ne dañ koy def ci par rapport ak euh, terrain bi nga yor wala par rapport ak euh, suuf si ak yooyu noonu loolu amul ci l'islam voilà parce que tey koo xamante ne yor suuf wala yor na kër te amul alal mais yor na kër kooku boo ko di laaj ci loolu mais da nga koy gën a ndóolloo da nga gën a ndóolloo maanaam day nekk ci xat-xat moo tax gars lool loolu rek lañu ragal Euh, ñu nekk ci réew tubaab bi xam nañ ci daal maanaam euh, loolu da leen na sonal euh, mooy taxe d'habitation voilà taxe d'habitation par exemple loolu da gis ne d'ailleurs bon bu dee ci réewum tugal moom alhamdulilah léegi wàññi nañ ko bu baax a baax a baax pour ñeeñee rek lañ ko bàyyil mais li nga xam ne moom mooy objectif mooy mooy li jaaru mooy ñu dindi ko carrément en tout cas ci l'islam loolu lay prôné parce que day dafa da parce que nit ki buy fay taxe ci loo xamante ne moom juralu ko xaalis amul ba pare mi ngi nii et que euh, amul daanaka foofu mu dem wuti lu mu fayee taxe ci loo xamante ne moom euh, daanaka munu koo ñàkk comme fu mu dëkk xam nga loolu tamit ah voilà ak ay impôts parce que ay taxes yi nga xamante ne dañ koy def pour entreprise bi et cetera yooyu yëpp amul ci l'islam l'islam li mu xam mooy mooy liñ lay wax nii mooy azaka yi yooyu maanaam loolu parce que système la boo xamante ne day dox xaqiqatan euh, Euh, te balaa ngay xam ne yeneen yi ci des ay problème la nga xool ñi yor ay seen entreprise yi ba pare di ci doog a tàmbali euh, ni ñuy soxlawee eh, ci at yu njëkk yi vraiment dem ba dëgër euh, bu état bi ñëwee daal di dénk ñu daal di commencer daanu seen laaf yi commencer tooy et cetera l'islam moom du doxalee noonu parce que principe bi mooy comme li wax kay laa takkuuna dawlatun baynal aghniyaa minkum boo xoolee li tax ma teg azaka islam dane mooy bu ko defee Euh, koom gi bañ a des ci diggante ñi ñi ñi woomal ñi am alal maanaam comme loolu mooy principe bi nag ñi amagul lu doy ñooñu kenn du leen teg taxes yi tax wala impôts yi tax euh, koom gi di am ñuy am ñu ci am ay jafe-jafe ñu ci am ay problème euh, léegi kon oromu tijaara dañ ci génn asak kon wax nañu asmaan yi mooy nuqut mooy mooy or ak xaalis ak lu taxaw seen taxawaay wax nañu Euh, euh, az-zuru' wa as-sima' hmm? euh, mooy njaay mais loolu d'ailleurs mooy mooy li nga xamante ne mooy li ñuy bay comme par exemple ay bitix ki xaal voilà xaal ak yooyu yëpp ñoom duñ leen a asaka ba pare riba du ci am tamit xaal parce que duñ ko natt duñ ko peese xaal par benn benn lañ koy jaay lu ñuy jaay par benn benn riba ci am ñu lu ñuy jaay par benn benn riba du ci dugg voilà comme ay oto ay yooyu riba du ci mën léegi mu am yi nga xamante ne kon euh, yooyu mu am li nga xamante ne tamit beneen mbir la boo xamante ne euh, euh, waxoon nañ kon xayawaan yi mooy mooy bahimatul an'am wax nañu orobu ci jaara mu am beneen boo xamante ne loolu la tuddee mooy ar rikaazu wal ma'adin yooyu dañ ci génne loolu mooy lan dafa ak am solo mooy tey euh, mbel la muy miim yi voilà euh, wala ay trésor yoo xamante ne par exemple nga dem ci àll bi par exemple fekk foo xam ne kenn moomu ko wala yu mel noonu nga wala nga am tool nga fekk fa alal yoo xamante ne maanaam nga gas rek gis ay trésor foofu yoo xam ne alal du bari la loolu benn yoon rek nga koy génneel azaka boo ko génnee mooy alxumus moom mooy un cinquième bi rek ngay génne ci ngay génne azaka wala boog nga dem nga def ci benn mine nga découvrir ko mine bi yow yaa ko moom léegi nga moom mine bi léegi mine boobu tamit liñ ci génne da koy génneel azaka mooy un cinquième bi nga koy ngay joxe voilà comme li hadith bi eh, Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu ni ci saxee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem naan euh, al ajma'u jubaarun wal bi'ru jubaarun wal wa fil kaasu Euh, ajuma bi mooy mooy mooy mooy bàyyi may ndax mënuñoo wax waxtu leer mooy ñi mënta wax waxtu mooy bàyyi may ñooñu su fekkente ne mais ci condition la maanaam su fekkente ne bëccëg gi la ba noppi euh, euh, kii wuñu ànduñu kenn maanaam ànduñu ànduñu ñi leen moom ñooñu lu ñu lu ñu yàq loolu jubaar la mooy. mooy da mooy xadar rek mooy dara lu la ci fekk tey par exemple bu ma yoroon am xar ma bàyyi ko bu fori ji ci bu demee mbëkk oto jàmbur yàq ko loolu man du ma fay dara mais su ma àndoon ak moom day damay fay ba pare su ma kii woon tamit damay fay su ma su dee guddi la parce que guddi parce que dafa censé tëri bu guddee ma dem jëli ji ñëw yeewu voilà kon loolu moo tax mu ne loolu jubaar mu ne wal biiru jubaar teen tamit noonu la mel teel du yàq jubaar maanaam du du du ku ci daanu par exemple tey bu fekk ne benn waaye dafa ñëw sama biir kër ma defar fa teen moom mu ñëw dugg ci teen lu ko ci dal it man du ma du du du man du ma fay dara du ma responsable ci dara mais bien suuf su ma ko defee nag foo xamante ne euh, dafa làqatu wala yooyu duñ ko gis nit ki daanu ci dënnu damay fay mais il faut mu nekk foo xamante ne. fu ñuy xam la fu ñuy gis la fu fu fu mën a leeral fu mën a leer la wala boog may may liggéey loolu tout simplement ci teen euh, mu mu may gasal teen teen këpp ci kawam daanu ci kawam lu ko ci dal man bu man may fay parce que liggéey liggéeyam la doon def et puis que euh, condition yu mel noonu man mënu ma garantir que ni dara du ko ci fekk parce que suuf si et que euh, moom day gas rek et que moom moo xam liggéey bi moom moom mooy jël responsabilité ndax lii mën na ko def waaw wala déet kon al al bi'ru jubaa wal ma'dinu jubaa ma'din moom mooy ndel bi tey benn mine maanaam fii tegtalawul ne mine amul asaka jubluwu ci loolu mais li mu ci teg ci jublu mooy comme kuy liggéey ci mine yi nii ñaare ñiy dugg ci mine yi ku ko gis day xam nga day xóot yooyu bu fekkente ne accident dafa am maanaam dara dal leen ci yooyu noonu man du fay suñuy responsable par rapport ak loolu euh, maanaam ñun lii ñoo mooy règle l'islam yi nag léegi nag na ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci droit euh, droit xaw ma lan yooyu noonu ñooñu un droit droit naka lañ ko defee droit pénal wala xeet yooyu noonu wala droit des affaires ñooñu après mën nañ wax ci ci ci mbir mi ci seen domaine ñoom mais ñun ci charia la ñuy wax ci euh, loolu kon loolu mu ne eh, loolu ju euh, euh, yooyu yëpp dara du ma mu ne waaye war wa fi rikaz yi xumus bu dee rikaz moom mooy trésor yooyu nga xam ne dañ koy fekk ci àll bi maanaam mu nekk te ci charia loolu xumus moom moo ci am un cinquième bi moom laa ci génnee euh, azaka yi euh, nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci àll ci ci géej gi bi ci génn tey bu ma demoon ci géej gi bi fa ay or yeneen ak yeneen tout ça yooyu dugg ci génne azaka wala mbell yi maadinul bahri mooy mbell mooy miinu géej gi wala yooyu noonu loolu di ci génne azaka ci kaw loolu tey moo li nga xamante ne mën naa ci koo génne azaka tey tey par exemple su ma am lu concret su ma amoon benn ay zircon wala or wala phosphate wala yeneen ak yeneen ma fekk ko mu am valeur ci ci ah ci dëkk bi maanaam ci mbedd mi nii ci ci dëkk bi ci gi ci jéeri ci ci jéeri ji loolu dañ ciy génne azaka loolu dañ ciy génne azaka alors que bu fekkee offshore la mooy mu nekk ci géej gi nga xam ne pétrole bi exemple wala yu wala gaz bi bu nee ci biti fii dañ koy génne azaka waaye bu nee ca gi la duñ ci génne azaka loolu mooy waxu jumhuurul ulamaa bu nee ba mën a jamaaxe parce que mbooloo rek ci xanaa bi lay rahmatullah ñoo wuute ci masala boobu ne ñoo yooyu tam dañ ci génne azaka mais li wér mooy duñ ci génne azaka te loolu sax mooy mazhabu bi nga xam ne mooy mazhabu Euh, mboolem ñeent ngir mooy bi ci xattaa ba xanaa bi lay rahmatullah loolu lañ dëggal ci seeni masal euh, euh, li nga xam ne tamit xanaa bi lay ak xanafi rahmatullah wax nañ ni dañ ci génne azaka moom mooy mooy mooy mooy lem mooy abe yi bu ñu defaree lem wala yu yooyu dañ ci ñoom mais ci jumbuur duñ ci génne azaka te tamit ñàkk gi génn asaka mooy lu ndax amul texte bu ko euh, kon ñoom dañ koo gam-gam la nattale ko rek ak ci ne du yàqoog yu mel noonu euh, tey par exemple yi nga xamante ne euh, ñoom ñooy zeyt zeytun zeyt mooy olive wala huile d'olive yooyu noonu fuqaha maliki rahmatullah ñoom dañ ci génn asaka parce que lan parce que dafa remplir condition ne dañ ko mën a denc dinañ ko mën a denc ak yu noonu kon loolu mooy olive ak ak